Ah. salaamaaleykum ku dugg rek na nga partagé ah ku dugg rek dugg rek partagel ñu wax ak euh, jeunesse bu Géejawaay ak population bu Géejawaay ah ku dugg rek dugg rek partagel xam naa ne bruit bi bari na mais euh, ñu jàllale message rek nu mu gën a gaawee ñoo ngi fii tribunalu Géejawaay ah tribunal bi gis ngeen ngi tribunal bu Géejawaay ku dugg rek na nga partagé vidéo bi après ñu wax ak jeunesse bu Guédiawaye ah parce que affaire yi dafa changé te fii ma taxaw rek maa ngi dégg ay manipulation ay nit di wax yenn wax yi xam nga ah, te dañu toll foo xamante ni dafa am lu ñu dénkaane woon ñu foqati ko biñ ko foqatee ñi nga xamante ni ci ñoom lañ ko foqatee dafa am lu leen naqari mënuñu koo nelawaale nu mënuñu koo nelawaale Ahmed Aïdara li mu def Alioune Sall maki Sall du ko nelawaale ba ba muy dee sàll Sall mënul nelawaale duma yi ko Ousmane Sonko di duma chaque jour Macky Sall mënul nelawaale xorom si ko Assane Diouf di xorom chaque jour Macky Sall mënul nelawaale xorom si ko Barthélemy di xorom chaque jour Macky Sall mënul nelawaale lenn loo xamante ni jàll na ci élection yi di ñëw léegi nag man li tax ma xëy ñëw taxaw fii ñëwuma fi pour lu ñàkk fayda dama ñëw pour représenter ay dara li tax ma ñëw pour représenter ko mooy si nga lii am nii bu fekkoon ne jamonoy Alioune sàll la wala fu mu nekk moom dinañ ko ko fekk xamal lijjanti ko ak moom mais géejawaay suñu loxo lay nekk ngir yàlla ak yonent bi ngir yàlla yéen jeunesse bi laay waxal dépassé nañu taal pono nañu toj oto jàmbur dépassé nañu toj ay kaar dépassé nañu tamit sànnante ay xeer ak ay policier parce que wane ngeen ko àllarba bii passé dépassé nañ foofu yëpp fii ñu toll nii fulla la laaj fulla responsabilité yu dëgër benn bis bu Sénégal yëpp war a taxaw représenter Sénégal ci lépp lu mën a am ci lépp lu mën a am nga xam nga ñàkk a xam àdduna dafa toll foo xamante ni lépp avancé démocratie dafa dellu ginnaaw Sénégal mais démocratie bu mu dellu ginnaaw ci ñun doomu aadama yi nga xamante ni ñoo nekk biir senegal na nekk ci un pour cent bi leneen li nga xamante ni moom laay wax jeunesse bi jeunesse bi man bu ma taxawee léegi na xale yi génn leen benn école du jàngi géejawaay te xam naa yoon bi may jaar ba def loolu mais tolluñu foofu parce que ñoom loolu la ñu bëgg yàq oto jàmbur sànnante ay xeer xam nga dóor ay lacrymogène xam nga ñi asma ñi am feebar suñu yaay suñu yumpaañ suñu bàjjen yi après ñu am ci ñeneen ñoo xamante ni dañuy ñàkk seen bakkan loolu soxla wuñu ko fii géejawaay parce que géejawaay dañoo doyloo ay Aidara dénk ko géejawaay yéen ñi ànd ak moom dama leen ñaan ngir yàlla ak yonent bi du ragal de barki Serigne Fall du ragal ñun faale wuñu Macky Sall faale wuñu ko lijjanti wuñ ko sax parce que fi ñu jëm moom xam nañ ko te 15 mois moo ci des 15 mois fukki weer ak juróom ak ay fan moo ko dese ci Sénégal te man maa leen ko dogul fan yii yëpp maa ngi koy dogul nit ñi gëmuñu ko mais billahi wallahi wa taalaahi barke yonanti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Macky Sall du fi am troisième mandat wala sama bakkan bii du ko fekke loolu moom man maa leen ko garantil def leen ko seen bopp yi parce que Afrique moo changé doomu Afrique yi ñoom ñoo soppeeku mentalité yi dafa changé bu ñu demee ba téléphone di muus waxuma laa doomu aadama bi defar téléphone dégg ngeen li ma leen wax bu ñu demee ba téléphone di muus laa wax waxuma laa doomu aadama yi defar téléphone foofu lañ toll fi mu toll nii nekkatuñu ci di yàq nekkatuñu ñun pour liñ ñu defal géejawaay wala li fi suñu maam yi defar wala lifi suñu papa yi defar ñu di ko yàq nañ fi bàyyi suñuy station nañ fi bàyyi suñuy pono loolu yëpp dañ ko soxla bu leen taal dara bu leen yëngal dara li ma leen mën a xamal mooy Ahmed dara soit ñu renvoyé wala ñu ñàkk a renvoyé dina dem élection par force te kenn mënu ci dara dina nekk député par force parce que maire par force la ñu waxoon mu nekk maire par force loolu loolu dafa bokk ci li nga xamante ni il faut ñun ñu di ko doxaale ñu di ko doxaale mais lu jog rek ñu jël ay xeer sànni romb oto Baye Modou wala Baye Moustapha wala Assane Diouf toj ko te kooku dëkk ñun ci koñ bi après moom muy am problème mu nan lay def ba para war a jag après Macky Sall tëdd biir Mermoz wala mu tëdd ci biir pale bi nekk ci jàmmam buy génn ñu escorté ko nekkatuñu foofu dafa am ci délai bu ñu jëm délai délai bi mooy 15 mois yi ma leen wax te li ma leen waatal gëm leen ko bërki démb rek laa jóge Daaru Salaam ay kilifa ay kilifa yu sant Mbàkke ñoo toog ma toog ci biir salle ñoom ñëpp ñu bokk dogu ne kii du fi am troisième mandat te duñ ko bàyyi mais bu heure wax jotee rek dinañu wax parce que ñoom ay kilifa lañ li ci des mooy géejawaay Ahmed dafa am lu ngeen ko dénk mu war ko defar lu ngeen yàq rek moom ngeen ko yàqal te Macky Sall li muy bañ mooy am gis nga bis bu ñëwee Géejawaay pour inaugurer BRT bi xoolal Ahmed mooy taxaw ci kanamam ak costume-am teeru ko par force rakkam ji mu yaakaar ne woon mooy taxaw di ko teeru ca ginnaaw lay taxaw par force Assane Diouf sax koy jiitu parce que la mu yaakaaroon ne moo am fii amul ñun ñoo moom géejawaay ñun ñooy population bu géejawaay ñun ñoo fal ay dara ngir yàlla war a suuli bu leen fi taal pono bu leen nangu policiers yi lacrymogène yi ñuy taal benn lakk lacrymogène bu nekk presque soixante-dix mille la mën na dundal kër te xolal Ousmane Sonko daf ko soxla dafa soxla xaalis boobu ci budget Sénégal la Barthélemy Dias daf ko soxla ay Aïdara daf ko soxla parce que dañu am ay mbedd yoo xamante ni mënuñu cee jaar nawet baa ngi ñëw waa Pikine fii ci taatu technopole bi fi ñu jël jox ko mili maanaam jeunes yi ngay gis yëpp seen base a ngi fii ci biir a euh, arène nationale ak fi chinois yi dëkkoon fa lañ leen jox ñu def ko seen camp te camp boobu li ko wër yëpp sëkk nañ ko li ko wër yëpp sëkk nañ ko te dama leen koy wax yéen ñi dëkk pikin yéen ñi nga xamante ni yéen a dëkke côté armel yi boo yeboo ngeen préparé wuti ndimbal parce que wallahi bu tawaatee yéen ñëpp di ngeen génn seen kër yi ñun looñu moo ñu intéressé fi mu toll nii lii dal ci kaw population bi moo ñu intéressé mais lii dal ci kaw Macky Sall intéressé wu ñu yëngaluñu bu faatu woon léegi xoolal ñu daajal ko ay seng duñ amuñu ci moom benn soxla. amuñu ci moom benn soxla amuñu soxla ci njabootam amuñu soxla ci jabaram bu wér ak bu dof ak bu nekk nit ak buy sàcc suñuy milliards ak amuñu ci soxla amuñu soxla ci doomam bu nekk hippopotame tol ne àdduna suñu yoon nekku ci li ñu intéressé mooy. na takk ay bagaasam na commencé defar ay bagaasam Mariam xaw ma Mariam xaw ma Mariam xaw ma xaw ma loo mënti doon commencé jël sa paanu cuuraay yooyu nga doon dajale nga yóbbul ko sa yaay Saint-Louis parce que palais bi dootoo fi taal cuuraay loolu moom garanti Mermoz googu ngeen dëkk wallaahi kër gi ngeen dëkk moomu leen ko dinañ ko nangu amul benn explication te li ñu bëgg Ahmed def ko li ñu bëgg Barthélemy def ko li ñu bëgg Ousmane Sonko def ko li ñu bëgg maam Diarra Fam def ko li ñu bëgg Déthié Fall def ko li ñu bëgg Guy Marius Sagna def ko man par force laa wax par force sàll mu munu ci dara du ndeyam moo ciy mën dara du baayam moo ciy mën dara ñun ñoo moom Sénégal te ñun ñooy lijjanti Sénégal te kenn mënu koo lijjanti foofu la ñu toll léegi nag li may wax li may wax ma bëgg toujours mu dugg ci boppu jeunesse bi gis nga fii boo dee professeur yaa ngi jooy boo dee étudiant yaa ngi jooy boo dee élève yaa ngi jooy élèves yi rek a taxaw fii boo dee marchand ambulant yaa ngi jooy boo dee chauffeuru Njaga Njaay yaa ngi jooy boo dee journaliste yaa ngi jooy loo mënti doon ci senegal yaa ngi jooy ñenn rek ñoo fi jooyul ñenn rek ñoo fi jooyul te dootuma leen muñal muy kilifa diine yi nga xamante ni dañuy dem di leen jox ay millions ay milliards ñoom ñooy téye suñu loxo bu leen ko nangooti man luma ko benn kilifa diine kenn dootuma ñaan ma may la parce que doo toog sa climatiseur ma nekk ci naaj bi sama yaay nekk ci naaj bi samay mag nekk ci naaj bi samay mbokk nekk ci naaj bi bu ñu demee ba ki ñuy néewal doole di ñu néewal doole nga jóg ne téye leen seen loxo yi muñ leen yàllaa fi ne yàlla dafa préparer lépp pour ñun yàllaa nga ca kaw asamaan sa ñun mu jagaleel ñu suuf boole ñoog ay responsable responsable yooyu bu ñu jëlee seeni responsabilité xoolal ñun du ñu génn ci mbedd mi ñun du ñu génn di wax conseil des ministres pourquoi conseil des xalif général pour quoi conseil des grands bu amu fi Macky Sall joxu leen cër respecté wu leen faale wu leen lu dul ñii alal la ñu gëm te waxoon na ko parce que c'est lui-même qui a dit que tous les marabouts sont des citoyens ordinaires ordinaire nag la wax ordinaire mooy alalu chinois bi américains yi defee original chinois yi dañoo defar foo loolu mooy yéen du ngeen dara moo tax ñun ñi bëgg ngeen nekk dara ñuy dajale suñuy addiya di leen ko indil di dajale suñu lépp di leen ko jox yaakaar leen yee bàyyi leen ñun ñu xeex jàmm ji pour Sénégal foofu la ñu toll tollatuñu ci ah, Sénégal pour gàttal ak teg ci ay teggin Sénégal santul Diouf Sénégal santul Sall Sénégal santul Mbacke Sénégal santul Si Sénégal santul Ñas Sénégal santul Joxaane santul Laay santul leneen Sénégal njaay gaal gi ñëpp joow Sénégal gaal la sant kenn moomu ko kenn moomu ko dama koy def ci bopp nit ñi te li ëpp importance mooy jeunesse bii nga xamante ni ñoom ñooy taxaw di reyante ñoom la ñuy rey yee ñun ñoo ëpp importance ci Sénégal leneen amu fi importance te bu leen fàtte di nga génn nag sa yaay naan la ah da ngay dof doflu lu yee waxoon nañ ko maam Cheikh Ibrahima Fall dof bi lañ ko daan woowe waxoon nañ ko Serigne Touba bi muy ànd ak tubaab yi dañ ne dafa dof rek ñu demoon nëpp ñëwuñu wax nañ ko maam Alaaji Waalik wax nañ ko maam Baye Niass moo tax yow jeunesse bi bu ñu taxawee di la wax naan la dof nga wala lii nga yee romb nga dem faj li ngay faj romb leen nga dem faj li ngay faj parce que sa yaay mooy sonn sa papa mooy sonn say rakk ñooy sonn say jarbaat ñooy sonn te coono boobu dafa jeex Sénégal am na pétrole Sénégal li mu am France amu ko Sénégal li mu am ci suufam France gi ngeen ni rey seen bopp di dugg ci bateau yi amu ko Angleterre amu ko Allemagne amu ko États-Unis amu ko amul kenn ku ko am ñoom ñëpp ñun la ñuy dunde waaw pourquoi ñun ñu dundal suñu bopp te dundal suñu bopp mooy xar suñu tànk tuba yi gis ngeen man bi may ñëw fii léegi rek Ousmane Sonko bi mu ñëwee ma bind ko message daf ma ne maa ngi ci biir saal bi bëgg ma ñëw non non dem ci biir saal bi parce que bi may ñëw di wër dama gis ay jigéen rek taxaw jigéen ñi sax fi ëpp góor ñi ana yéen ngeen góor ñi ana ngeen ana ngeen yéen góor ñi topp ay débat toog ci anglu ko yi topp ay match ay Liverpool ak yu kenn xamul ah, ay barsaak yu kenn xamul Sadio Mané ay milliards am mënta dajal senegal yaa ngi dégg yéen seen jabar yi soxla or bu ngeen xamoon Sabodala gi li fay génn ci ay tonne or chaque jour wallahi du ngeen wax waxi saajo maane saajo maane jël ballon d'or intéressé wu ma man parce que li tax intéressé wu ma ballon d'or bi matul sax un kilo matul sax liibar te boo duggee fii Sabodala Macky Sall ak ay nitam ñi ngi sàcc ay tonne or di ko génnee Sénégal par chaque jour coupe du monde bi ngeen di wax wala coupe d'Afrique matul sax cinq kilo or matul sax six kilo ñuy sàcc seeni tonne or di ko génne zircon ah rakkam naan petrolu géej gi pétrole Sénégal bi ba mën xolal oto bu mu yéeg sax da ngay gis ni oto bi def na nii ah ngeen bëgg a toog yéen yor seen làmmiñ rek toog ci taatu télé yi toog ci taatu bayaal yi bu ngoon jotee ngeen sol seeni kii naan non Sénégal la ñu intéressé Sénégal intéressé wu leen bu leen Sénégal intéressé da ngeen di sacrifié wu pour Sénégal loolu la Serigne Touba def sept ans sept ans ci àll bi te benn mbokkam àndul woon ak moom moom la Baye Niass def fii Serigne bu fi nekk xoolal ak loo mënti am ci ay taalibe ak noo mën a tollule Baye ñas moo la ko ëpp la junni yoon parce que dafa xar tànk tubayam génn dem xare ji liggéeyal lislaam moo tax ñu koy wax seexal islam boo demee Nigéria ñun 17 million doomu aadama lañ Nigéria deux cent millions deux cent millions doomu aadama ñoo fay yeewoo te Baye Niass moo leen di contrôler kon lii ñu leen di contrôler ay kilifa diine du dara parce que la fa nekk yëpp yéen a koy joxe bu yéen xëyul dem liggéey génne ay addiye barki Serigne Touba léegi Serigne sépp dellu ci tool yi bay kon delloosiwaat leen seen xel yi sëñ Touba amul woon poos Serigne Touba Xaadim Rasool amul woon poos yóbbul ci wanag wi la daan wax xoolal kilifa yi fu ñu mënti nekk première dévaluation bu Sénégal Serigne Touba moo génne li mu nekkoon ci wanagam yëpp jox ko nasaraan si pour ñu de pour pour ñu bañ a dévaluer def leen ko seen bopp yi dem leen ngeen gëstu ji Sénégal fi mu toll nii du ay wax du ay buuxante du taal pono du toj station parce que station yi ay sénégalais fay liggéey du toj oto jàmbur oto bi ngay toj sénégalais ko moom du toj ay kaar kaar yi ñoo ko moom Macky Sall amu fi dara lu dul silibam silibam dong la fi am silibam kese te bis buy génn silibam lay yóbbaale parce que yëre yi muy sol état Sénégal la koy jënd oto bi muy dawal état Sénégal policiers yi koy garde ñu ni taxaw di ma dégg Macky Sall leen di fay moo tax góorgóorlu leen ngeen xar seen tànk tuba man loolu laay wax population bu géejawaay géejawaay laay yeewoo bis bu ne seede baa ngi nii góor gi taxaw nii mool ba ma jógee Amérique ba léegi mool bu ma mool ba ci jardin bi ci école douze lépp moo ko mool te bu ma neexoon jël sama alal jooju xolal teg ko sama étage yéeg ci kaw di leen wax est-ce que tout va bien mais xalaatuma lool parce que heure bu ma yeewoo maa ngi gis soit sama benn papa wala sama benn nijaay wala sama benn sax morom bu demoon université jàngi man ma nekk nilaar ma daan wax ci sama ndaw ne oh kii moo may gën a kii kii moom boo moytul président lay nekk tey xoolal mi ngi marchand ambulant wala mi ngi def leneen ok léegi gars yi nee nañu renvoyé nañu procès bi ba le 27 juin amul problème amul problème résistance comme ni ko sawaay waxee moom mooy am Sénégal mais taal pono d'accorduma ci du solution toj oto jàmbur du solution parce que Macky Sall loolu la bëgg bu leen ko nangu bu leen taal pono bu leen toj bu bu leen laal station bu leen def dara parce que fii nii chauffeuru Ndiaga Ndiaye yi ñenn ñi dañoo bàyyi seen liggéey chauffeuru taxi yi góor gi ma leen di wax Baye Ndiaye dafa bàyyi liggéeyam ñëw taxaw fii te xam ngeen ne li muy am bariwul barki sëñ Fallou li muy am bariwul mais dafa bàyyi léppam ñëw taxaw moo tax bi ma ñëwee ba léegi ci wetam rek laay taxaw parce que bu taaloon lacrymogène wallahi billahi moom mii taxaw rek dina tax ma sacrifier sama dund loolu mooy àdduna dañu war a xeex pour suñu ndey yi ak suñu baay yi dañu war a xeex pour suñu yaay yi dañu war a xeex pour suñu rakk yi ak suñu doom yi nga xamante ni ñoom ñooy juddu ëllëg mais toog toog ci sa saal lu ñu wax rek nga ubbi sa làmmiñ oh xoolal dafa jeex dafa jeex ba pare information encore maki Sall dafa am ñu mu àndaloon Bun Jonn ci la bokk Aly Ngouille Ndiaye ci la bokk Omar Youm ci la bokk Aminata Tall ci la bokk ñooñu ñëpp wan nañ ko ginnaaw parce que ku ci nekk da ngaa toog sa saal xolal dem ci Facebook bi Assane Diouf dugal la vaar say doom ne la yaay yaa fi waxoon liire nga tourné ne sa doom liire maa ko waxoon te mooy dëgg Macky Sall du fi am troisième mandat non au troisième mandat cohabitation day am par force ni mu amee France dinañ la futti def la taatu neen jël suñu nguur dénk ko ñi ñu doy man nag Sénégal laa fi nekkal Sénégal kese li tax ma nekkal fi senegal man duma ma protéger benn doomu aadama ci 17 millions doomu aadama Ousmane Sonko dafa porte voix wu jeunesse bu Sénégal moo tax ñu ànd ak moom jiital ko ci kanam mais Barthélémy nga fa Khalifa Sall nga fa Bougane Gueye Dany nga fa keneen ak keneen ak Déthié Fall Mame Diarra Fam xoolal ñun foofu la ñu toll xoolatuñu mbubb mu rëy wala oto yu jekk wala étage bu rafet wala lenn lu dul suñu Sénégal nañ ko lijjanti te bu leen déglu benn kilifa diine parce que bi yëf yi commencé ba léegi bi yëf yi commencé ba léegi wallahi billahi ñun ak yàlla ak Seydina Mohamed mi ñuy xëy di julli di ñaan mais déggu leen benn kilifa diine bu génn wax du kenn ku génn wax moo tax bu leen déglu benn kilifa diine man gëwuma ci kenn parce que li taxoon ma gëm Serigne Touba maa ngi koy gëm ba léegi li taxoon ma gëm Serigne Touba maa ngi koy gëm ba léegi parce que leer na ma ne bu fi nekkoon tey dina génn na leen na dakk ba pare jiitu ci xare bi mais ñoom bu ñu toogee ci seen sa loolu jarul wax première activiste bu Sénégal sa wax na ko mooy xaadimu rasul sallallahu alayhi wa moo tax ñu koy woowee Serigne Touba foofu la ñu toll mais toog ñu naan leen yow boo génnee ci mbedd mi te yow boo génnul ci mbedd mi sa papa génn ci mbedd mi suñu papa ngi ni suba ba léegi ci fajar ba léegi mi ngi ci taxaw fajar ba léegi mu ngi fi taxaw bu leen kenn wutal fu ngeen ni jaar bu leen kenn wax lu ngeen ni def xoolal loolu yëpp ñuy def lii ñuy def ay renvoyé bala vingt 27 ak yooy xoolal manipulation la parce que le 29 Sénégal dina yëngatu ba adduna bi yëpp xam ne Sénégal yëngatu barke sëñ Bamba xoolal bu fekkee ne bu fekkee ne ay kubéeru bu fekkee ne ay kubéeru cin ak ay kubéeru bool ñoo yee euh, waa États-Unis bërki démb ba ñuy wax naan lan moo xew ci adduna bi ba Joe Biden woo secretary of state am ne ko lan moo xew ci àdduna bi waxuma laa sénégalais yëpp génn ci mbedd mi boo dee sama yaay neewuma la nga romb sa buntu kër génneel sa cin rek teg ci buntu kër gi neel xale yi aywa jël leen mbedd mi parce que mbedd mi bàyyu Macky sàll moomu ko mbedd mi ndeyu Macky sàll moomu ko mbedd mi ñun ñoo ko moom ñun ñoo ko moom te bu leen ko kenn tere ñun duñu dellu ginnaaw man de laa wax man man damay garantir sénégalais yi wallahi lu ne def na ko lu ne gis ngeen avocat boobu avocat boobu gémmiñ gi mel ne ONAS xoolal avocat boobu lu ne la def lu ne la def pour man ma gisee ak Macky lu ne def na ko nee na ma trois heures du matin xoolal soxlawu sax mu ne ko saay mu ne ma ma ne ko yow mal xiyaam sax gëm naa ne man su ma eggee ak cofeel bi ma am suñu borom ba doon gor yàlla dina séparer dina dina créer beneen safara bu ma dee dem safara wala mu créer beneen àjjana parce que wóor na ma ne Macky Sall maak moom du ñu daje ci àdduna te bëgguma dajeeg moom ilaa yow mi diini parce que man doomu gor laa doomu gor laa alal du dara lépp lu mu yor dañ koy foqati boo weddee laajal Usama Ben Laden boo weddee laajal Saddam usen boo weddee laajal Mubarak boo weddee laajal Xadafi bërki démb ñooñu ñëpp ku leen waxoon ne Xadafi ku ko waxoon ne yow di nga dem ba xale yu ndaw téye ci mbedd mi di la duma ba nga naan seen baay laa laxa laxa laxa laxa wallahi ñu rey ko xolal teg ko ci ay seng bane ne sax dañ koy saaf moo tax yeewu leen Sénégal yéen ko moom Sénégal français yi ñu ko Macky Sall moomu ko benn mbokkam moomu ko préparé leen xolal lépp luy am ñun dinañ ko lijjanti incha allah yàlla nañu yàlla defal jàmm. ñu ngi woote fee Sonko génn. ok nee nañ Sonko day génn. alama jël caméra bi ànd ak ñoom ah. ma jug jug leen. ngeen toogaay kër gi. wallaahi génn leen résistance le 29 résistance. ànd ak suñu jàmbaar ji waaw Fandiaye